Talfa ngoog ndeysaan amul la nga def xorom Talfa ngoog Talfa tardé nga tey de Talfa xanaa tali bi moo xatoon sama gaay yi oh Talfa ngoog le grand champion ndeysaan le grand champion Talfa ngoog Talfa lu waral retard bi tey Talfa ngi si téléphone bi Talfa ngi si téléphone bi si téléphone bi xoolal bi day génn bi ndeysaan le grand champion moom toog ci quatre victoire ndeysaan leader invaincu tey ni fu ñoom Reug Reug toll fa la toll leader invaincu la quatre combats quatre victoire mu ñëw ci cinquième combat bi ndeysaan gannaaw tàngoor am na tàngoor man am na pomme am na orange laa fa gis de Talfa borom quatre combats quatre victoire cinquième bi nu muy demee aa andi ko andi ko ni wàcceel bi mbër mee ko moom. Talfa cinquième bi nu muy demee sama gars yi. waa Dóor Dóoraat cinquième bi nu muy demee. sama gars yi yu de. waaye mu mën a ñu waaw ñaari nen ñaari yoon ñaari yoon waaw bu nekk waaw waaw entre mystique Kalfa borom quatre combat quatre victoire mu jëm si cinquième combat am Kalfa nuyu naa la. waaw ñaar si nen bi bàyyi ko mu kontaan ma bàyyi ko fu mu concentré wu. mooy mënu jàll bàyyi ko mu concentré wu. daj na benn nen. waaw daj na nen. jëlee suwaay. bi nga xam ne ci biir ndox mi. mais ma jël image fii grand. daj na ñaari nen. waaw. waaw daj na ñaari nen. nen yi ne su ma ko joxoon Malick si mu wax ko day saa. Talfa a ngi dugg. Talfa a ngi dugg.

mais maa ngi lay fay ah waaw maa wàññiwul dara sarax bu dara sarax bu dara jël leen tibb leen lu ngeen mën tibb leen tibb leen jël leen tàngal banaana tibb leen tàngal leket bi nag leket bi nag moo ma jaaxal leket bi grand chef mën naa may leket bi ah TV c'est moi Khadim Anta Seck. Khadim Anta Seck. maa lay siyaar di la bëggee. mais Khadim Anta Seck boo gisee ma tàllal la micro. waaw xam naa ne am na loo xam ci laa ma xamoo lépp. tuuti rek yaay sama maître. mais xam naa ne si tur ko tur yi bari na tur ko tur bari na. tur ko tur bari na trop sonn laa def tur ko booy ñaar tur ko tur bari nan nga leen gisee. mais dara bi ma laaj dama cee kontaan. waaw ndax premier janvier 2006. waaw ci laa njëkk a dugg ci stade Léopold Sédar Senghor séance de lamb. mooy yëkkati Tyson. ma faraloon ta Mouhamed Ndao Tyson. waaw jamono yooyu Mouhamed Ndao Tyson ay la woon na uh-huh. maa ngi koy ñaan ko yàlla may fan bu gudd mu ànd ak wér gu yaram ndax moom mel ne Tyson dafa ñëw daal di révolutionné yóbbu fu lamb lamb yóbbu ko fu sori sponsor yaakaar naa su ma jul Mohamed Ndao Tyson bokk na ñi ngay ni ci laa dugg ci lamb si naan Mohamed Ndao Tyson kon soo ma laajee premier janvier Boy Niang doomu dëggal ji. 2023 2023 kon. waaw Cheikh Yérim mooy maamam. waaw Mourou Balak Mourou Balak Kodou Balak Kodou May. jërë. Uh-huh. kooku su bëree mbër la. Uh-huh. su bëreewul mbër la. Uh-huh. daa doon ci mbër gi ci nijaayam Boy Niang. waaw yàlla na ko yàlla yërëm. doonul ci mbër gi yaayam Ana Seck. ndax yaayam ci famille mbër la bokk. papaam dëggal di bëree. waaw kooku daa doon mbër gi ci ñaar. waaye kii mu dajal kooku 2 janvier 2005 la dugg si làmb. moom ak kan. Balla Gaye numéro 2 moo ko Samba Laobé la woon. kooku yàgg naa dugg Pikine. su ma def na fa 6 combats wala 7 septième baa ngi nii. daanu. am na seen ko am na moo ko njëkk daan 8 février 2010. waaw 2009 2009. waaw daanaka ko 15 lan. avril 2015 15 avril 2015. drapeau Lamine Diack. kon kon Boy Niang. Boy Niang waaw waaw waaw sunu papa Lamine Diack. kon Prince Prince day bëri noonu de. kon moom moom de Prince daan na de la def. kon Pikine yàgg yàgg naa mbay daanaan ndax yàgg naa dégg baykat gànnaay. Ndongo Lo yàlla na ko yàlla yërëm ku fi juddoo soo amul doole di nga am fi du rëy kon Pikine mbër bu fa jógee rek daanaan lay doon. ñu nekk ci premier janvier yóbbu ak jàmm. ndax Balla Gaye booy naa da wax wax bu solo dama laa yàgg seetaan yàgg laa topp ngay ak samay patron ñi may tungoo ma mbër bi ma gën a xam ci làmb yow la mbër nag bu la waxee loolu xam la nag. am lu mu denc waaye Boy Niang li mu wax li mu wax est-ce que dina ko jëfe fii est-ce que dina wax dafa bari maa man maa bu doole dama laa xam bul ma laal bu la ko dina la laal ñeme gi mu ko ñeme bu ko ci kawam ah combat bu neex la de Balla Gaye mooy favori Balla Gaye def ci lamb Boy Niang dafa dugub 22 avril 2012 bi fi ñëpp bàyyi maa ko daan yëkkati ba mu daan Modou Lo Modou Lo mosul dëgg muñal. bu muy daan Coly Faye mars. bu muy daan la daan Modou Lo. mosul dëgg muñal. Mame daan yaa ko wax. dëgg daan Coly Faye Coly Faye mosul dëgg kooku ni mu daan leen ci lamb. ah ah ku mu dajal moo war a nekk favori de su ma juumul. moo war a nekk favori. si si li ma sama xalaat bu gàtt. Balla Gaye mooy favori yaakaar naa ñu bëri ànd. bu ñu jàppante ñu jàppal ku nekk jàpp ngemb boobu boobu kat moom avantage Balla Gaye sew ndax Boy Niang day xaar mbër mooy xaar la xaaram avantage am ci xaar la nekk mën naa xeex nag ndax nee na à l'âge de mi ngi nekk centre sectiral di jàng box kon kooku su mënul xeex ñu war ñu laaj ko bu ñu xeexee avantage Boy Niang la bu ñu bëree Balla Gaye la sama ba Boy Niang ko moo daa ko xeex moo daa ko xeex Balla ah, koo xam à l'âge de 14 ans yaa ngi jàng xeex. waaw ah kooku war na mën a xeex 14 ans. te booy naa am na 30 30 nangam. kooku su mënul xeex ñu laaj maa lay ñaanal jàmm nag. di naan Iba Kane TV ndax yow ngaa sonn ci làmb. bul fàtte. 2009 ba nga dem Ziguinchor Gaston Kalaf Gaston ba la ca xewoon du ma ko wax talaba suñu Babacar nga talaba Cheikh nga nit ku baax nga télé bi yàlla ne ba nekk télé bu mag li ngay dégg nga liggéeykat nga sunu grand nga ci métier bi la fekk yàlla na nga am ay télé yu bëree bëri le premier janvier daal yàlla na yàlla yóbbu ak jàmm stade moom dina fees moom yàlla na ko yàlla may wér wér jóge na France ñëw na. ñëw na feebar ñëpp koy def sëriñ si. Ah. nan nan nan koy seen làmmiñ sëriñ si wax. waaw internet bi. Ah. li ñu wax xamuñ ci dara. Ah. dañ leen a informé rek ñuy wax. waaw Gaston Xaala Mbeng nit ku baax la. 92 la ñëw ci làmb 92 laa juddu. 30 ans. 30 ans mu def ko ci làmb. façon mbër bu ne tëgg na la yóbbu lamb fu sori dañ ko ñaanal wér ak gudd fan feebar ñëpp lay dal yow mii di nga feebar man dinaa feebar feebar ñëpp ngay def kon bu yàlla defee mu feebar dem extérieur faju ji loolu dara nekku ci mais ay lamb ji du am ak yow du wax lamb ji dina am le premier janvier lamb ji dina am fii Balla Gaye ci kattanu yàlla yàlla moo yàlla retawut yàlla lamb am ci jàmm Balla Gaye ak Boy Niang bëri ci jàmm këraméer gañ kontaan naa ci ji nag tey mm-hmm. sama moo dëgg Modou Baye Fall mbër la woon ah. Ah. nekk amateur ah. Baye ñëw tëgg lamb gis nga stade bi lii lii nii boo ko tëggoon dimanche Iba Mar xaju fa. mais picc bi nga yor xanaa si gàllaaj la. picc yi ay xar fa xubaloon tey lañ ko jënd kër Diallo lañ ko jënd ay xar fa xubal yoo xam ne sëriñ si. waaw moo ñu ko digal rek. Uh-huh. man pire ne ma naa ko téye ak socc bii nii. dañ maa digal socc tamit. lii ay xar ku ma fuuf na la fuuf. suñu faalu nee na. xar fa xubal dafa baax. dañuy takk di naan ndax lameñ. ak bët baaxul. yow mi am na loo takk keneen ak keneen am na lu mu takk. mbooloo mi boo ko gisee ñi lay xool uh-huh. foog nga takk dara suñu faalu nee di gërëm Sa Touba bu baax le grand marabout na fi ay mbër gis naa mbër yi muy na ñaar ci daal gis mu indi ay mbër maa ngi koy kontaan di ko ñaanal nit ku baax la yàlla na ko yàlla defal jàmm Sa Touba le grand marabout le Ibrahima Diop nit doomu doomu Pikine bi doomu Pikine bi doomu doomu Falaye bi bàyyam moo doon bu yàgg bu caat bu caat màggee yabel jeex yàlla na yërëm takk na ngemb yàlla ko yàlla yërëm ba bàyyi Mouhamed Ndao Tyson nekkoon na sama moo nekk sama mbër ba ma dugg ak Issa Pouye ñaar ñooñu waaw waaw kooku ndaanaan la woon ndeysaan ndaanaan yi lekkuñ ci làmb lu koy def ko ci làmb Sey ma nga Espagne ay ñoom Malal Ndiaye Garga Mbossé ah, ah. Yékini Junior Bébé Saloum le retour de Bébé Saloum Bathie Seras oh. Balla Diop Balla Diouf ndaanaan yi Ousa Ousa 1 daanaka ni lekkul ci laaw. sës numéro 2. Jeylaani Pouy. Jeylaani Pouy ca Ndar bokk Usa. ma nga Suisse. Cobra 1. non champion yi ne ci lamb. tukki bàyyi na. Jaguar. mi ngi ci ay tolof tolof lan la ko yàlla dimbalee. foog la ma nga États-Unis depuis 4 ans. oh. Sentel Baye Ndiaye. Sentel ak Baye Ndiaye. Tidiane Faye. Tidiane Faye numéro un. ndeysaan oh lamb ci ay ndaanaan. dafa bari ram daan dem si yàlla. Baba Baba Mal. ndeysaan Boga. Boga mel na. lamb li mu yóbbu ci ay ndaanaan ñoo bari booy Jiné. ndeysaan Jiné yee. yàlla na ko yàlla yërëm. ndeysaan xare ko àjjana. oh oh ñoo nekkoon ci lamb. mais bu ñu demee woon fii dañoo bëri. séance Pikine mbooloo. bari na bari na mooy fatu. Assane Ndiaye ba woon maa ngi koy bëgg bëggee di ko gërëm lamb lamb li mu moo bari xaar ko xaar ko waaw fu ko demal waaw kontaan naa ci yow gàkku deux ak ak ak xale ba dem loolu